Martine Kourouma ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay jaajëfal bu baax. Mhm, nga bokk ci comité d'initiative euh, pour l'érection mémorial musée euh, doon tamit orphelin bu bateau le Joola tey ji mhm. euh, ñu fas yéene màggal dix-neuf ans ah, gannaaw nag ba bateau bi suuxee lan moo doonoon li nga xam ne diggoon nañ ko famille ñi ñàkkle ci bateau boobu tey defuñu ko. liggéey bëri woon na fi. Mhm. mën naa lim ni ko wàllum orphelin maanaam euh, njëriñ yi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen waajur yi. Mm-hmm. wàllum ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci ñi nekkoon ci bato bi te yàlla sauvé leen tamit. Mm-hmm, mm-hmm. ñoom ñëpp waroon nañ leen am na ay jigéen yi fi nekkoon. yi nga xam ne dañ leen a waroon a jàppale. pour que ñu ñu gën a génn ci la ñu nekk. ñun ñoo amoon ay demande ñoom jigéen bi. c'était la prise en charge. Il n'avait pas parlé de justice mhm. de prise en charge des orphelins et mhm. Donc euh, ci digg yi. Mhm. dañu newoon woon dañuy dañ fi teg bépp jéego yi nga xam ne ñooy mën a saafaraal jërim yi nga xam ne jërim yi. ak ñi nga xam ne ñoo mool. ci bateau bi. yooyu lañ fi amoon comme jigéen. yan lañ ci jot a def. yuñ ci jot a ci jot def. am na tuuti coppite. parce que. boo xoolee mille neuf cent jërim lañ fi jotoon recensé mm-hmm. ci après naufrage bi mm-hmm. mais ñu ngi ci doon jël ñu ci doon jël en charge seulement huit cent mm-hmm. mais ren am na benn liste bu bees bu génn ñu ngi ciy jël trois cent soixante onze orphelins ñu ngi koy lu waaye dañ jàpp ni ko doyul parce que bu ñu sañoon orphelin njëriñ yëpp dañu war a bénéficier wu ci li nga xam ne moom la état bi waxoon. Mhm. donc ñu ngi sàkk ci état bi ñu xoolaat ñi nga xam ne ñoom ñoo ci test ñu xool nan la ñu war a def ak ñoom bu ko defee ñëpp mën cee yëg seen bopp. Mhm. ñooñu des waaw. Mm. Mhm. tamit euh, gis nañu ay coppite ci wàllum musée mémorial bi nga xam ne yàgg nañ ko laajte. am na ay am na chantier bu commencé côté Ziguinchor. Mhm. ñu ngi koy rafetlu tamit. Mhm. donc ñu ngi xaar euh, liggéey bu mel noonu. Mhm. wala musée bu mel noonu ci côté Dakar. ci ñi ñu jot a lan moo tax ñeneen ñi des euh, lan lañ leen jox comme explication ci yan caractéristiques lañ ko teg. pour ñu beddi ñenn ñi. donc euh, ci fu ñu toll nii. jotuñu ay explication ci lan moo tax ñu génne trois cent soixante onze yi lu tax ñu ñu ci def. Mhm. waaye ñun jot lañ leen wax suñu xalaat ak suñu taxawaay. Mhm. maanaam suñu taxawaayu démb mooy suñu taxawaayu tey. Mhm. ñun bu ñuy xeexal ñëpp la ñuy xeexal. ñu ngi rafetlu bu baax lu ñu def. waaye dañ jàpp ni ko doyul. atum ren màggal bi nan lay demee lan mooy particularité bi. donc euh, ren Euh, changé wuñu trop par rapport ak daaw parce que dañ nekk ba léegi ci mbas te mbas bi boo xoolee ñu muy laal dafa bëri donc dañ ko xaw a yamal lu ñu prévoir bu fekkee activité phare bu ñu prévoir moom mooy minute de silence donc euh, dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñu ñoo fi jógee ak dépôt de gerbe dépôt de gerbe la ñuy def ba pare benn minute de silence su ñaari cimetière yi maanaam ci cimetière mbaaw ak ci cimetière Saint-Lazare. Mm-hmm. en même temps tamit ak place du souvenir. place du souvenir mm-hmm, ñu seetlu ne ay at a ngi nii euh, dañ fay màggale euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci naufrage bi lan moo waral choix bi. donc euh, bu ñu naufrage bi ci ëllëgu naufrage bi. Mm-hmm. président bi fi nekkoon moom mooy président Wade. daf ñoo jagleloon place du souvenir. nañu place bi nga xam ne fa la ñuy di célébrer suñu commémoration mm. waaye dañoo dem ak ci ginnaaw ci kanam mu soppi ko euh, tourné ko ci beneen euh, sens mais boo xoolee place bi fu mu ko defee fuñ ko tabaxee mm-hmm. moo joxe ci océan bi te boo xoolee tamit dafa symbolique parce que ñu ñuy ñaanal ñu tax chaque at ñu rassemblé wu di ñaan ci océan bi la ñu def lan moo gën a rafet ñu dem ba ci buntu océan bi def suñu activité ñaanal leen déposer suñu fleurs yi pour ñoom. mu am tamit euh, comme mbébét li nga xam ne dañ ko daan dégg saa su nekk muy ñu génne génnewaat bato bi euh, tey fan mm-hmm. ngeen toll ci euh, loolu nga xam ne yéen a ngi koy ñaan ñi ñu jiite. donc fu ñu toll nii ci pàcc yi ci foñ yi nga xamoon ñëpp ci la ñu doon ñaxtu boo xoolee pratiquement dara buute parce que boo xoolee ci orph euh, prise en charge orphelin yi moo xaw a am ci lu avancé musée mémorial bi tamit tuuti rek am na avancement mais prise en charge totale njëriñ mi ak rescapé yi soppeekuwul. Mm-hmm. renflouement batu bi génnee maanaam batu bi ci ndox bi. Mm-hmm. soppeekuwul. musée mémorial bi benn côté rek lañ ko defagum lañu tàmbali liggéey yi waaye des na beneen côté bi. Euh, journée 26 bi. def ko journée prière ak journée souvenir ba léegi amaguñ ci ci côté justice bi tamit dara leeragul parce que euh, justice su Sénégal dafa classé dossier bi non lieu euh, tey jii euh, ñu wax ci thème ndax chaque année day am thème bi nga xam ne da ngeen ci sëgg waxtaanee ko atum deux mille euh, vingt et un bi muy dix-neuvième édition lan mooy doon thème bi ngeen jagleel bés bi ok donc thème mu année bi mooy naufrage de Joola ak gestion de la pandémie les responsabilités continues maanaam fu euh, ñu ko mënee un peu toj maanaam Joola ak pandémie bi parce que fu ñu nekk nii ñu ngi ci mbas depuis ñaari at. Mhm. dañu gis ni que nit ñi dañ koo farataalul. Mhm. wala dañ koo jàppul muy dëkk. loolu dañ koy dañ koy bëgg a jàppee comme nuñ ko jàppee joolaa bi rek mm-hmm. xam nga joolaa bi dañoo caaxaan mm-hmm. ba am parce que joolaa bi bala muy am am na li nga xam ne moo ko jiitu yu bëri nga xam ne bàyyiwuñ ci xel mm-hmm. mbas bi tamit ñu ngi koy caaxaanee tamit di ko foowe ñuy tegle ñuy tegle vague yi première vague deuxième vague anaaka sax bu yàgg sax di nga déggal ñu ne la quatrième vague jëm kaw ça veut ñoo farataalool dara maanaam loolu la ñuy woowee ci benn ci tubaab irresponsabilité mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, maa ngi koy méngale tuuti ak màggal bi nit ñi chaque année bu ñuy dem màggal accident yi dafay bëri chauffeur yi duñu nelaw lu doy yoon yi dañ koy parax paraxee mel ni yoruñu ay bakkan ay bakkan bakkan dañ ko war a aar mm-hmm. bakkan dañ ko war a bakkan dañ ko war a jox loolu yëpp ci irresponsabilité lañ koy dugal mhm. dañ ciy boole rek di ci ñaaxaale ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu màggal bi nañu jël seen responsabilité nañu def nañu def attention bu ko defee ñu mën a moytu yenn yi ñu mën a dem màggali ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm. 19 mhm. ans après euh, dossier bi tey tëj nañ ko gannaaw nag bañ ci euh, waxee noolu ya euh, tey yéen ngeen ci ndaw di ci ay orphelin ban taxawaay ngeen ci namm ak it nan ngeen ko jàngatee. pàcc yëpp nga xam ne ci la xeex boobu ba léegi ñu gën ñu ci taxawu parce que boo xoolee du lu bëri lu ndaw rek la. Mhm. laaju lu dul volonté maanaam bëgg-bëgg. état bi état yi lu ñuy jéego yu ñuy laaj ni yëpp ñoom buñ ko bëggoon tey tey tey mm-hmm. ñu saafaraal donc dañuy bëgg ñu gestu ñu ñu gën a gestu lu ñuy def ñu mën ñoo saafaraal lii ndaxte boo xoolee weesu nañ ki nga xam ne war nañ toog fii di ñaxtu ci même affaire yi depuis at mm-hmm. dañ toll fi nga xam ne ñun dañu war a gën a tourner di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge mm-hmm. te tant lii jéego yi saafaraaw ñu ko dina metti trop parce que chaque année même chose mooy ñëwaat naqar gi dafay gën a taxaw mm-hmm. donc dañuy ñaan état bi mu gën a gestu famille parce que bu affaire famille li jëm ci dossier justice bi justement dossier justice bi lan ngeen ciy xaar gannaaw ba mu amee noonu ya donc dañuy xaar ñi nga xam ne ñoo ci takk yëpp mm-hmm. daan bi leen war a topp mu topp leen mm-hmm. ñun loolu la ñaan parce que mënuñu gëm ni que ñu jël ñu ne euh, dossier bi non-lieu la ndaxte sa responsable bi euh, capitaine bi la capitaine bi làkku na ci batu bi capitaine bi dañ jàpp ne victime la moom tamit am na droit am justice victime la comme deux mille personnes yi nga xam ne ñoom ñoo làkku ci naufrage na Joola donc mënuñu jël yëpp def ko ci ginnaawam parce que moom am na ñu ko doon jiitu donc responsable ci am yëpp parce que l'État est le seul assureur du naufrage du Joola donc responsable irresponsabilité bi ñuy wax ni état bi moo war a jël responsabilité bi su ci responsable yi bu ñu yoon li muy laaj yëpp. Martine Kourouma merci beaucoup. merci beaucoup Elisa. d'accord suba